maag jibi yàgg nañu quoi depuis bañ nekkee xale ba léegi ñooy ànd waaw nekkoon na koo xam ne jege woon na ma trop trop trop trop trop trop ba yoonu bu mujj bi ba ñibbi man maa ko gunge maa ko ànd ak moom ba ci oto bi wàccee valise bi waaw dugal ko ci oto bi ne ko booy demal yoonu jàmm demal bi nag metti na ma trop metti na ma trop trop kenn ñàqul man maa ñàq ndax man mi nga xam ne maa ngi moom chaque guddi dañuy waxtaan chaque guddi dañuy waxtaan dañuy waxtaan ba ne ko ba mu ne ko booy yow yaa ngi soog a yeew man damay tëddi ah yow instant bi sa bëccëg nga ne fi ma nekk nii damay liggéey suba ba suba mu ne ma waa ok booy ba suba ma dem liggéey ñëw ñu ne ma sa copin dem na métti na ma trop métti na ma métti na ma jabaram tamit nekkoon sama xarit ku ma jege koo xam ne moom mën naa ne dañuy partager lu bari ba mu fi nekkee waaw mu dem nii

waaw lépp moom nice quoi vraiment saa yi fi musaane ñëw moom ak gars yi kafre waxtaan bon ambiance daal waaw. waaw mais effectivement comme loolu rek ah bon xam naa ne moom du ñàkk moom foog autorité yi jëm cee jël ay mesures quoi waaw parce que lii tamit métti na trop ah, ko métti na c'est dur waaw parce que jékki-jékki nii tamit gis sa frère xam nga jël ko noonu saa affaire bi taal kër gi loolu daal yéeme na daal ma ne ko yéeme na loolu daal. mais nag gëm naa ne moom dina leer daal incha allah waaw. waaw jiw de moom doon nit ku baax rek xam nga nekk nit ku yaatu xam nga bëgg ñëpp xam nga bu ñëwee Sénégal day bëgg gaa yëpp ñëw daje xam nga waxtaan foore xam nga waaw doon ku baax daal ku baax laa mën a wax ci moom waaw. ko sax ba nekkee fële moyen Barça yi nga xam ni sax moom moo ko jëndal ñëw jox ma ko ak def acte bu rafet xam nga doon lu métti daal xam nga dëgg fa yàlla métti na trop xam nga nekk soutien de famille xam nga. jékki-jékki am di nii benn dogal bu dal di yéeme na daal waaw métti na trop trop sax. j'étais touché quoi ndax mënu ma ko gëm noonu sur le sang quoi ndax xam ni koo xam ne waxuñu la feebar waxuñu la dara nga jékki-jékki rek ñu ne xam nga dafa def choc décédé dafa dafa métti quoi waaw mooy loolu surtout incendie tamit doon lu métti tàkk ku ci nekk xam na lakk ni muy def tey sa loxo bu lakkoon sax xam nga métti bi nga yëg sax ko tuuma nag kër gi tàkk dafa métti daal dafa métti.